xam sa démb xam xam sa démb xam xam sa démb xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey maam El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh la ñuy waxtaane tey ay ñu ngi waxtaane ku ñu bëgg di waxtaane suñu maam di waxtaane ku ñu yéem di waxtaanee ku baax di waxtaanee ku teey di waxtaanee ku bëri xam-xam kon tey ñu waxtaanee fula tey ñu waxtaanee jom tey ñu waxtaanee ngor tey ñu waxtaanee ndono tey ñu waxtaanee julit tey ñu waxtaanee aafis tey ñu waxtaanee kàngfoori tey ñu waxtaanee kàngam tey ñu waxtaanee El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh tey ñu waxtaanee yiw ak tab ak ngor tey ñu waxtaanee doylu ak maandu ak fit tey ñu waxtaanee jomi lislaam tey ñu waxtaanee xar kanamu lislaam bu rafet xam sa démb xam sa tey ana ku ñuy waxtaanee xanaa du El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh waaye juróom bu jigéen wu tedd wa mooy Adja Sofietu Ñang El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh mi ngi feeñ ci jamono jaar ci maam El Hadj Malick Sy muxaddam bu mag ba hafiz bu mag ba walliwu mag wa boroom Tijaniya fii ci Sénégal ak Afrique sowu jant Amelage Malick si mooy way juram ñu koy wooyee Maodo kuy pël xam nga ne Maodo ku màgg ki lay tekki kon ñi ngi waxtaanee doomi ndeyu Serigne Fallou Mbacké di Alaaji Abdou Aziz Sy kooka nag feeñ ci jamono nag 1904 ca Tiwaawoon digganteem ak Dakar di juróom-ñaar fukki kilomètre way juróom wu góor wa booba ñaari at rek la ko jiitu ca la wàcc Tiwaawoon mën na ne jamono jooja ca la maam El Hadji si Sy radiyallahu taala anhu ne ci biir julit yi nañuy màggal yonent bi sallallahu alayhi guddi googu nag mu gane si woon àdduna moom Muhammad sallallahu alayhi wa la ñu tuddee gàmmu ci wolof ca jagsaaw lan ko njëkka samp ca 1904 muy dëkk boo xam ne gox-goxaan la woon bu jegee ak Tiwaawan ñaar fukki kilomètre waaye nag mbaye taxoon ñu samp ko njàngum alxuraan laloon ko kon mën nañ ne doomam ju tedd ja meññee fa mu tedd wa maam Abdou Aziz Sy baax am na ay at yu bëri yu mu def jagsaaw ndax moo tax jagsaaw doon péeyub tarixa tijaniya xam sa démb xam sa tey mën jàpp mooy sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh moom Tiwaawoon la dalee alxuraan ci wetu waajuram wu tedd wa te ñu ko waroon nag di borom xam-xam yoo xam na ay kàngam yu mujj a samp ba mu jógee ca loola am na njàng moo xam ne jàng na ko islaam te loola la ko ko may mooy mag ña nga xam ne waajuram wa moom maam Maodo moo leen sampoon te ñu mën caa ràññee Serigne Mouhamadou Lahadi Touré bu Fass Touré ci département wu Kébémer ba muy doon tu tànk ci Zahir nag la wane bëgg xam-xamam waaye yéem ñépp ci xam islaam ak lépp lu ca aju te xam nañ ne dem na ci barab yu bëri yu mel ne Mbakumbe ca Kajoor wër boobu mu waroon nag di wut xam yóbbu na ko 1930 ba muy am ñaar fukki at juróom benn rek ndar nga xam ne booba kuy wut xamxam xam da nga fa jaar ndax kanfoori ya fa ne toog na fa nag ba 1937 ci kër ku ñuy wax Serigne Ibrahima Diop ngir mottali am njàngam 1947 maam Abdou Aziz Sy baax ca la dem Makka ànd ak kan xanaa xaritam ba maître Lamine Gueye député wu Sénégal ci assemblée nationale France waaye it maire de Dakar liñ mën a jàpp ci dundu maam Abdou si mooy day jaabante rek diggante kaamilu alxuraan bi ak bay dundee diggante jaamu yàlla ak dundee wërsëgam diggante defar jaam ñi ak bañ leen a lor loola moo tax keroog ba yàlla dogalee 29 mars 1957 mu doon xalif généralu Tidiane war a wut nag ñaari kàngam ñaar ñoo xam ne kenn dootu leen fàtte Seydi Babacar Sy radiyallahu taala anhu ak El Hadj Mansour Sy bal xaw mi keroog sëkk matoon na ba mu toog sëñ Abdou Aziz Sy ana ba mu toogee doon xalifa lan moo doon yitteem xanaa fexe ba jullit ñëpp doon benn xanaa fexe ba kenn ku ne wekk sa moroom fexe ba diggante yi ratax kon mën nañ ne du njuumte buñ ko tànnee ne ko kaay nga jiite jullik juma gi nga xam ne mooy wane ne ubbi nañ grande mosquée wu Dakar le 27 mars 1964 ma mbir mooma ba mu amee fekkee na ko buuru Maroc Hassan II nga xam ne architecte boppam moo xalaatoon jumaa jooja te ku dem Casablanca gis ne yi dakaar ju mag ji seexam ma nga fa di jumaay Hassan II waaye ki ñuy waxtaanee mooy maam Abdou Aziz Sy ma taar ba ma yiw wa ma ca yaatuwaay ba kooka nag ku ko seen muy ñëw turam ngay tudd waaye bu agsee jikkoom ngay tagg bu jëflanteeg yow nga maandu toog tey jàng ci moom. maam Abdul Aziz Sy Dabakh moomu moo doon mbegum jaam ñi moo doon tiitaru jullit ñi nga xam ne ñooy julliti Afrique yi te la koy firndeel mooy taxawaay bu rafet ba mu amoon te kenn dootu ko fàtte. ca congrès islamique ba nga xam ne defoon nañ ko ca Makka 1965 te buuru Makka nga xam ne mooy Faysal Ben Abdelaziz Al Saoud jiite woon ko te Ligue du monde islamique taxawaloon ko waaye nañu fàttali 11 juin 1968 11 juin 1968 keroog ba ñuy delloo yàlla kii di président assemblée nationale maître Lamine Guèye keroog discours bu mag ba mu waxoon keroog xutba bu mag ba mu defoon des na ci xel yi rajo yi ba tey ñi ngi jàllale waxtaan woowa muy fàttali kenn ku ci ne ak noo toll ak luy sa dayo ak loo am ne li la war mooy nga fexe ba doonub jullit te yem ca waaye nag liggéey bu mag bi nga xam ne waajuram ak magam yu baax yi defoon nañ ko moom da koo wéyal loolu tax 1979 mu ne nañ yokk jumaay Tiwaawoon waaye yamut ci loolu afis bi aalim bi yamut ci loolu ñëpp liñ ko nawee mooy mbindam mu rafet ñëpp liñ ko nawee mooy baatam bi nga xam ne boo ko déggee sa yaram daw sëngam yokk te loolu li koy firndeel mooy gàmmu gi bu daan ñëw ana ko fàttali ko burd bi bu ko daan jiite burdu boobu nga xam ne ka ko bind mooy suufi bu mag boobu jóge woon Égypte bu Busiri ca fukkeelu xarnu ak ñett ci jamono. waaye bu ñu dégloo maam Abdou Aziz Sy da nga déglu koo xam ne dana déglu ñëpp nekk ci seen yitte waaye ku doon boole la yoroon pusoom di ñaw ne nit ñi nañu muñalante liñ mën a jàpp ci moom mooy fexe na ba ñi nga xam ne ñooy tarixa yi ñi nga xam ne ñooy kercen yi. ak jullit yi ñëpp ànd doon benn looloo tax ñu naan ko maam Abdou. boo déggee maam Abdou xam ne moom la ñuy wax la indi maam ji nag mooy cofeel ak maandu gu mu maandu woon ci diggante nit ñi ak dëggu kàddoom dëggoon ba nga xam ne lu manti am ci dëkk bi bu waxee xel yi dal bu waxee xol yi giif bu waxee jàmm ñëwaat bi nga xam ne politiciens yi jaxasoo nañ moom góor gu màgg ca Tiwaawoon da daan jël lam war a wax mu wax ko lam war a def mu def ko muy opposition muy nguur kenn ku ci ne mu wax la nga delluwaat ngeen toog waxtaan kon man nañ ne ku daan defaree la maam Abdou Aziz Sy manoon naa woo syndicat yi ak jàngalekat yi woo étudiants yi ak élèves yi wax ak ñoom ba kenn ku ci ne ba la nga ŋànkoon waxtaan ba am déggoo mën nañoo jàpp ne kon daan na xool tey gis daan na wax te du yàq daan na defar ci bitim réew ak ci biir réew mi ba ñëpp nangul ko borom xam-xam bu mag boobu sëriñ bu mag boobu kon mën nañ ne tey fexe ne ba sénégalais yi gënoon a bëgg Palestine ndax taxaw gu rafet gam ca taxaw woon ana luñ mën a jàpp ñeen fukki at doon na ko xalif waaye ñeen fukki at yoo xam ne woyof rek ngay gis ñeen fukki at yoo xam ne wàccee sa bopp ngay gis ñeen fukki at yoo xam ne yéwén ngay gis ñeen fukki atu am jotu nit ñi ngay gis kon ku jàng ci moom te am ba tànk doo tëju maam Abdou Aziz Sy Dabakh wane na liggéeyam waaye njaboot gépp wane nañ seeni liggéey ñëpp wane nañ liggéeyam ana luñ mën a jàpp tey Dabakh ne mën nañ ne musta soppiku tarafatal ay ni ba keroog ba muy génn àdduna 14 septembre 1997 bis bu niis ba bis bu diis ba bis ba kenn dootul fàtte gàcce ngaalaama si Malick gàcce ngaalaama maam da baax yaa baax kon alaaji Mansour si borom daara yi mi ngi jël ayam ginnaaw bu magam ju baax ja wane ginnaaw dellu ca yàlla maam Abdou Aziz da baax lañ doon waxtaane tey xam sa démb xam sa tey xam sa sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak archive national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut